léegi bi may ndékkee la ma sama benn jigéen woo ne ma dama doon dem Dakar ma ñëw fii di jël kalandoo safari kalandoo noonu day am ko ñu rey fële ma ne ko fan mu ne foofu ci sa boori jàkka ji xëy nga ma ne xëyaguma maa ngi ndékki fekk dama woo téléphone may jokkoo sama jabar wuyu ko même pare mu wax ma ko mu waat ma ma ne ko dégguma ko de waaye nag lee ma maa ngi dégg moo pare damay dem mu toog ba ci yàgg mu waat ma ma woo ko mu door ma ko wax ma ne kon maa ngi ma ma door a egg si léegi nii ñëw na mu mel ni wal dañ ma photo bi waaye miinu ma jëmmam fii ci karce bi sama njort daal li ma njort mooy dañ koo rey indi ko fi ndax dafa mel ni jeeg bu ndaw la gis naa image ñaaw na lool nag fii nag mosu fee am ndax xaw na ma fee yàgg am naa fa fanweeri at ak ñaar waaye lu mel nii moom mosuma ko fee gis bu jant sooyee noonu xam nga buñ jullee man maa ngi dëkk fële ca boori Kaaba foofu la sama kër ne bu ma jullee timis rek damay dem heure bi lay xëy ñëw ñaare waaye fii ah, amul sécurité ndax ñépp fii ñëw ñu fi yendut bari na ku baax dina fi ñëw ku bon dina fi ñëw mënoo xàmmee nag ñëpp man nak man na fi yalla def ma am fi depuis depuis julli xam nga bu ñëwee dañuy julli julli sé rek la wax ñen ñen dañ ci jaay fi jigen ni fi mom jigen ni bu ñu passion kat ya jigen ni ko fi ñëw rek da fi am soxla pour jënd añ wala yooyu pour nga dem ba boobu foofu def fofu passion la fofu ñuko def mo passion la kenn ki da jaay pay mi ki ci moy defar defar panu ci wàllu jàkk ji nag foofu boobu moom maa fi féete mag pël bi nekkoon fii léegi jàlloo ñoo fi ne ñi fi ñëw nag nu mënu leen a xam noonu ñëpp waaye eh, xam naa ne bari na ñu fi ñëw di fi ñëw fi nit ku ne dina fi ñëw góor dina fi ñëw jigéen dina fi ñëw mag dina fi ñëw ndaw dina fi ñëw aussi yoon na nit mën naa defee njoom njombe ca àll ba ñëw indi ko fii waaye joortu naa ne daal bu dëkkoon ci quartier bi ma xam ko